yéenekaay yi master office VDM bi jàkkaarloo ak foire bi ngeen taamu ngi seen bépp bureau ak jumtukaayu bureau ak informatique moo leen di may seen revue de presse master office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 Macky Sall ak ku ko xam-xam ne du jigéen ju daan yam ci waañ rek la mu mës a xam mooy ñàkk tedd dóor la mës a xam keneen ku ñëpp xam ma nga ca lu ñu ko xamewul Pape Diop njiital Sénat ma ngay tontonteeg Abdoulaye Wade ci xët mu njëkk yéene bi di réew mi quotidien Abdoulaye Wade mi doon sàkku ñu audité Pape Diop Mamadou Seck ak Ousmane Masseck Ndiaye Pape Diop njiital Sénat tontu tontu na fa Abdoulaye Wade lam ko xamal mooy moom Pape Diop ragalul ay audit xuux dàq ko ku ko bëgg audité na nga ñëw bis bu ñu dikkee dinañu gisal seen bopp ñu gis Youssou Ndour ci observateur muy mel ne kuy tontul Pape Diop ministre culture ak tourisme di fa xamle ne lay dëgg tey dëgg moo di Abdoulaye Wade li ko war jamono ji moo di noppi te ba nit ñi ñu liggéey ndax moom Abdoulaye Wade du mooy ki war a wax nañu audité ma Samba wala nañu audité ma Demba Sud ay nit yu fekk baax ci Suisse ñoo plainte soxna Viviane Wade ndax ab xaalis la ñu yëkkati jox ko mu toll ci benn milliard bu manqué ci gàttal 835 millions la ñu yëkkati jox ko soxna si di Viviane Wade ngir mu dugal ko ci projet gisatuñu xaalis ba tax na doomi Suisse yooyu ko ci yoon ba yoon yëkkati aw këyit jox madame Viviane Wade ngir mu waa Athéna technologie seenub xaalis libération nañu ñoom waa Wade tey la ñu nar a fay ba ndax ñeenteelu licence su téléphone bi fi Abdoulaye Wade jaayoon waa MTL soog a dem ndekete loolee document ya ñu joxoon waaja dara ci ci ay foo la ñu ko dajaleel ba seen xol sedd ñu jox ko ko ba ñu binde document ba ba lépp na cook ñu yaakaar ne waa jël ab licence am exploité ko rek moo ca des dañoo bàyyi ba ca suba sa dem rocciwaat juróom-ñaari page ya njëkk dugal fa seen page bopp ndeke loolee lépp dara ca baaxul yéenekaay bi nañu ba keroog muy sotti nag Moustapha Guirassy du ca set ndax ca yooyu la jamono moom la waa présidence jiitaloon muy def ak dindi ka dindee boppam ci biir parti démocratique sénégalais di Khoureychi Thiam xëy na ay dëggam ci las yéenekaay mboolem lu ñuy wax ci ginnaawam Khoureychi Thiam xëy na ca wax di la mu nekkee woon ci biir parti bii di parti démocratique sénégalais autorisation de pes ya ko doon joxe ci anam yu leerul camion frigorifique yi ñu ne Abdoulaye Wade da ko daan mbal muy seet jegeñaale Abdoulaye Wade yeeg soppe Abdoulaye Wade yi leen ko séddale jalgati di détournement yi ñu koy toppee loolee lépp ministre de la pêche ba woon di Khoureychi Thiam xëy na ca wax Khoureychi yamu ca ndax nee na fukkeet ak ñaar yi mu def ci biir parti démocratique sénégalais gars yi jàpp wuñ ko ludul fowukaay ku fowee ba xolam sedd rek mu jël day dem fekki fàq man yu njëkk ya ndax moom Khoureychi Balla Gaye 2 triple less bàyyi lu ko Eumeu Sène ubbi sunu lamb Balla Gaye fa la xëy toogi Eumeu Sène la mu njëkk xamle moo di Eumeu Sène intéressé wu ko moom Balla Gaye mu ni moo ngi toog di xaar diggante Bombardier ak Tapha Tine wala diggante Modou Lo ak Gris Bordeaux ku ca daan mu xool ana nan lay defee ak moom Balla Gaye 2 ne Gaston Mbengue na ko may jàmm ndax moom oto bi muy dawal Gaston Mbengue joxu ko ko te it Gaston Mbengue jëndalu ko kër Balla ne kër kër ju mitti moom la Gaston Mbengue ak Eumeu Sène nekk fu sëriñ nekk ñoom ñaar dem nañu fa di ma jëm a sëriñtu waaye dañu sonal seen bopp rek ndax man Balla Gaye sosé la këf yóbbuwuma kii di Eumeu Sène Triple Less di Balla Gaye danañu bu bëggee jóg jote ci man rek day yomb la ko war moo dina dem dajajëg poids lourd yi ndax Eumeu Sène musu fee laale ak benn poids lourd bu bëggee bëre ak man na dem laaj Yékini gone buy jàng yéeg ci guy gu daanu la koy jànge Double Less ak i doomam ana ñan ñoo ci gën a ay laaj baa ngi ci xët mu njëkk Walf Fadjri Sport Double Less nday mbidi njëkk caa tontu la mu xamle moo di ay doomam dabu ñu ko ci wëq moo leen gën a ay moo leen ëpp moo leen ëpp fit te it yéenekaay bi ñoom gëmuñu loole Double Less ay doomam ñoo ko gën a ay fopp ki ay ba romb ko romb ak mbon te yootu yées moo di Théophile Ndione mi ngi ci observateur ca Fandène la dëkk moom waaj yéenekaay bi nañu Théophile Ndione do amul lenn lu muy def lu may fekk benn xaritam mu sëgg ca jabaram saa yu ko soxlaa woolu ko bu ñëwee mu faj aajom ba aajom faju mu yëkkati ñaari téeméer jox soxna si noonee a nekkee ak moom ba benn bés mu soxla soxna si di jabaru xarit bi dem ca këram jëli ko soxna si lank ne di ko topp waa ji di Théophile Ndione xol ba bineegar mu taxaw ci digg kër gi weer soxna si